bi nga xam ni ak heure bii nga xam ni benn heure gënu ko seer ci ñun ndax lu ñu am ci seen Tuubaa rek heure bi moo na ko may bu ngeen gisee may insister ci yor yor bi démb ak barki démb ak yi passé yépp tey la xaar tey heure bii képp koo xam ni am nga tawféex ci Sëñ Tuubaa na nga xam ni heure bi moo la ko may li waral coow li heure bii la li sabab liggéey bi heure bii la woon convocation bi heure bii la ñëwoon ki demoon heure bii la dem te heure bii itam la woote ñu santale ko boroom kaay leen santale ma sama boroom ci tawféex jim ma ci jóge gi mu fi jóge heure bii ku baax ki nag santul dellu si gi santul dellu gi li muy sant mooy dem gi bu ngeen xamoon heure bii bu ngeen ko xamoon bu jotee bu ngeen di noyyi sax di ngeen bàyyi xel nokk yi dugg ak yi dem màggal bu ñu ko dee wax heure bi moo tax ñu di ko wax mooy yoor yoor ijaal ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yowmal jame xalqi niiraana rujuuci la wax jiitu nag muy ñaan sunu boroom defal ko ak dellu séem muy tex tey ak ëllëg dellu si la muy rëy rëy rëy rëy rëy rëy dem gii la Sëñ Tuubaa gën a ku baax ki néewul nañu sant ci dama daan waaye dañuy keroog bi nattu yi gën a metti fa nattu yi gën a mettee foofu lay sante mooy dem gii nii muy xarajtu yawma sabti samina ashar li xidmatil muxtaari fi shahri safar wala nga ne xarajtu yawma sabti rabi safar Euh, irwaaxul nadim bu Cheikh Mouhamad Lamine Diop moom Rabia safar la bind li gën a siiw nag mooy saamina saamina safar ku tedd gi li mu wootee mooy saamina achar mooy fukki fan yi ak juróom-ñett ah la tax ñu ni buru ko nag dem gii kon wolof nasaraanu te kon billaahi ñépp dem niiraanu maanaam da nga naan buru ko nag heure bii wolof nasaraanu te kon billaay ak yéen ñëpp ngeen dem niiraan kon heure bii mooy mbir mi heure bu benn murit sikk sàkkani Sëñ Tuubaa ngi lay teewal ndax heure bii bi mu jotee lépp dañuy teg heure bii la murit yépp jaaxle woon Cheikh Ibra jaxasoo lool bind ay lettres yu bari Cheikh Alaaji Cheikh Ibrahima jaaxle lool di bàggante Ndar ak Tuubaa mag ñi jaaxle lool ku tedd ki mel ku wéet ci biti fekk na mi ngi wéttaliku ci biir ndax allamani rahmaana fi safina bi na ni xadimu sil madina sunu borom xamal na ma bi may dem ni ma damaa nekk liggéeyaakanu rasulullah waaye sëriñ tubaa heure bii biñ demee ba war koo jël yóbbu koo xam ne xamoo fu la jëmee biñ koy jël si ñu bari doon jàpp dañ koo convoqué mu dem ku tedd ki dañ koo jël si ndax dañ koo woo mu ni woote ma jóg de yàlla rek ko man kurut sama borom day doom wacc sa bopp ñàkk a ko googee nag nga xam ni njëkkantal ba daa yebal maam Thierno Birahim Ndamal Darou moo sabab ñoom bi ñu koy bi ñu koy jël si PV bi pare na PV bi ko war a jàllale mu dem Dakar pare na waaye bu nee ba xam ne ñëw nañ pour jël si ko te bëggul benn murit dee dafa jël xalimaan bind baatu bi yaa maalikal mulki fa la ko bindee yaa maalikal mulki yàlla lay woor woowul kenn néew yéen taalibe yi kaay leen sécuriser ma woowul tam benn ruuxaaniya daf ni yaa maalikal mulki yow mi nga xam ni bu la sooboon du ñëw sax ci man ba dama jël si mooy bon nguur yàlla yaa man jàll an qawadin ñu ne teg mu ne ko irham jami al wara xool yéen maa na yaa maalikal mulki yaa diggante yaa maalikal mulki nag ak yaa man jàll an xawadin lu a xew na fi bi mu ne yaa maalikal mulki moom Sëñ Tuubaa daal di ne yaa man jàll an xawadin dañuy teg ñu dey ko ni ko sunu borom ne yow képp lay diglu boo nee mu effacé lépp mu effacé lépp duñu yegsi boo nee mu alak leen mu alak leen géej gi soppeeku climat bi soppeeku asamaan si niis murit dal te xamul lu leen dalloo lu mu ci war a teg mu ne yaa man e, e, yaa yaa man jàll an xawari mu ni ko irham jami al wara lenn képp laay sàkk mooy na nga yërëm mi na irham googu nag mooy raxma mooy yërmaande jooju mooy la yàlla jëloon teg ko ci loxob rasulullah loolee wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin sunu borom daf ne rasulullah dama lay yónni ci sama jaam ni te man óomalu gën a óomalu ëpp jaam léegi nag damaa bëggoon nga jël yërmande tasaare ko ci ñoom yërmande jooju yàlla yoxal rasulullah yi moom la Serigne Touba jëlaat naqaat ci loxoom daal nii yàlla ñii di ma jël si te defuma leen dara tooñu ma leen tam dañ maa jaxase ak ñoom képp ñu bëgg maa tàqale ak sama njaboot la may ñaan mooy nga nga sukkandiku ci tooñ gin ma tooñ yërëm mi def yëpp loolu mooy irham jami'al wara xam nga xal nag xusuur yi wala ahlu an nii tafarraqat daw na nee na nee na nee na samay kër gent na mais wan naa ginnaaw samay kër ma tàqali ak sama njaboot jël njaboot gi dénk na leen seen bàyyi Cerno war a liggéey li Rasulullaay waaj moomee waaj moomee ak jataay bu tiis boobee ak la ca xewoon lépp heure bii la nattu ba heure bii la heure bii mooy màggal de so damay faral di wax ni su yoor yoor bi jeexee bu ma dëkkuloon Tuubaa sama na ma ñibbi ndax heure bii ku ciy def lenn lu teewlu jëmmi sëñ Tuubaa ji bu mu ku ciy def lan lu bokkut ak teewlu jëmmi sëriñ Tuubaa ji heure bii xamoo màggal heure bii nga war ni teg jàngat li nga am te am ko ci heure bii li nga am te am ko ci heure bii loola ko may ak ki la ko may mooy kan kooku mooy kan nga ne ki ma ko may de mooy xaadimu rasulillah yaa ngi ko wax Cheikh Ahmad Bamba mais xaadim gi garaat la ndax lëggéeyal rasulillah moo ko may xarajtu yowma sabti saamina achara li xidmatil muxtaare fii saxri safara ah dafa tàbbi ci biir sababu xëybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li xaw mi ak a baax wa an na xaadiman fi daw mi xoola génne na njaboot ga xoola xalat xusuur yi wal ahlu am ni tafarraxat maanaam bi muy wax ni samay kër gent na ma wan sama njaboot ginnaaw bi mu demee bay liggéey daf ni liggéey bi sabab bi néewul sama njaboot de ne sababu sababu fàddu gi mooy ràmm képp sëñ Abdou Lahad Mbàkke nee na xaw mu mooy képp ko ay tànkam jëm su ay loxoom jëm kaw ak sawe sawe samam réew looloo ma tax a jóg heure bu fekkoon ni maanaam li ñuy wax gore ñun murit li ñu goreel ba nu ñime ba dox suñu digganteeg ñu am yaqiin ci ni àjjana leen jëm la ñu may loolee mi ngi bàyyeekoo ci heure heure bii lañ gore ñun ñëpp ci lañ gore kuy sant sëñ Tuubaa heure bii la ko may moo tax ku tedd kii ne heure bii saa yu ñëwee ñene sawara sax dañuy naan meew sedd guy ba heure bii passé bisub heure bii kenn du yëg ni yaa ngi sawara ña texee ña texee di sax sunu borom rusal na leen heure bu sëñ Tuubaa bii waxuma laa yéen ñii dund na te demagu leen fenn ngeen nefe na di waj waji heure bi jot heure bii nga xam ne ci la lépp dajaloo kenn ku nekk di nekk ci benn yitte bokkut ak teewlu jëm Sëriñ Tuubaa ëpp naa def moo tax yor-yoru màggal du caaxaan kenn du ko fooyee ku ko fooyee rek jëru ngay màggal si ndax mooy màggal lii mooy màggal. moo tax bu ngeen ko bàkkee ci xasidaam yi nga xam ne amul lu dul moom mooy jëmmam ci jàng ko ci njàng mu sell mi ngeen ko jàngee bu ngeen noppee nag dangeen di teewlu ñu doo ko def jàngat nag ci kii nu fi dajale kooku mooy kan. lan moo ko taxawoon a jóg ba tax ñu tàbbi ci taw fee xam ji ci heure bii moo ko joxe kon bu heure bi jotee rek dañu waxtaan Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nag sunu borom daf ko defal taw feex joo xam ni lu jafe la ci gaa yi baax yi ndax moom nee na man dey damaa ñëw jamono fekk sées yëpp gaa yi baax yi toog ci mooy wax de nee na dafa ñëw <laughs> fekk sées yëpp gaa yi baax yi toog ci sées gaa yi baax yi nee na mu dem ci sunu borom ni ko jox ma sées yàlla ne ko dama lay jox séesum ndigal ndigal bis ni teg naa ndigal ci sa loxo muy maqaamam ku tabbi ci say mbir jëfe sa ndigal mu ci tey ëllëg loolu moo indi euh, loo loolu moo indi euh, tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati loolu moo indi itam laa tafaalu shay'an bi xayri isni fal isnu sabtun fi qaboli shani ku tedd ki nee na amul benn murit bu warati def dara loo xam ni tënkuwul ci ndigal ndax nee na ndigal màndargam jëf ju ndung la mu nga koy dekkee mu jëloon teg ko ci ndigal am na fu wax ni dallani allaahu ala ala muhammadin wan qaada lii muhammadun li samadi dallani allaahu itam ala xayril wara wan qaada lii xayral wara lisil wara dallani allaahu itam alallaahi sunu borom tegtal na ma ci boppam dallani allaahu ala muhammadin suñu tubaab bi mu ko bindee da ko bind ba noppi date ko teg noonu téere bi toog na fukki at ak ñaar bay bi yëggut dallani allaahu ala muhammadin yàlla tegtal na ma rasulullaay toog na fukki fan fukki at ak ñaar yoo xam ne bay bi yëggut mu xëy rek daal ni wanqaade lii muhammadu li samadi muhammad tegtal na ma rasulullah ba yàgg mu doon jëmmam ji ak jëmmi suñu borom ji loolu moo indi damma xayaat yi li xayaatillaahi sama dund gi jaxasoo na ak dund suñu borom gi ku mel noonu boo ko amee da xam sa bopp ndax tawféexi àddina ak ju àllaaxira mi ngi ci Sëñ tawféexi àddina ak àllaaxira mi ci sëriñ bi màggal ku baax ki bari na ñuy ñëw tubaa di ko def si waaye wàlliwu yàlla ci niñ ko mën a waxee ci lenn ci ay maqaamam moom seen Touba boo amee tawféex ju toll ni tàbbi ci ay mbiram dangay xam ni ngay dundee moom ngir mën a am ngir mën a am tawféex ngir mën a am ndimbal loolu daa mat a bàyyi xel kon na ngeen di sellal xol yi te fas doon ay murit te ñaan yàlla doon ay saadex ndax doonum murit ak doonu saadex du benn bu doon ma riirandoo àllub jolof boobu nga xam daanaka kenn dëkku fa far bu nekk sele ba yoonu murit yi am na ñu fa seexee ñu bari am na ñu fa defaroo ñu bari miracle yu bari feeñ fa far nag ñu jàpp ne buñ ko fa jëlee indi ko njaareen def ko résidence mbir mi day jeex far mu ne dee raamu masiri ila jurbel la daa lësasin ay la wax a yénu <laughs> aka wax dëgg nee na sekkarab li ma war a jariñ mi ngi ci jële gin ma jëlee jolof ci yéen jolof indi ma njariñ ñoom na dañoo yaakaar ni fii ñu ma indi nii téye ma bi fi la mbir yi di jeexee fekk fa la mbir yee defaroo njaareem googu la ko ahlu badrin daan fekk njaareem la ko si rasulullah sallallahu alayhi daan fekk njëriñ la ko Cheikh Abdou Khadir Jeylaani fekk njëriñ la ko Cheikh Ahmada Tijaani fekk njëriñ ko fekk njëriñ la ko awliyaa u yàlla yu bari fekk njëriñ la defaree leen seex yu bari njëriñ la regle situation yi njëriñ la nekkoon di yónnee Touba muy bàgganti ku tey dëkk daj lu mel noonu ngir liggéeyal boroomam ak texeel murit ak bëgg baat bi mu wax ni waman taallaqa bi yan najaa képp ko aj sa jëmm ci man mu ci àddina ak alaaxira rek sax dàq loola lu lu toll noonu ngeen am ko lu riise noonu suñ tubaab lu riise noonu ngeen am ko muy heure bii nga xam ne temps bu gàtt la ngeen bëgg koo sànq ci ay ñàkk fayda damay sëf tiit ma ndax ñëw màggal ba dem te jëriñoo woo sëriñ Tuubaa mooy nga ñëw ba dem sànq heure bi heure boo fonk bul heure bii màggaloo ndax heure bii mooy màggal heure boo foog bul heure bi rek màggaloo ak koo mën a doon waaw bernde nag teraanga la waaye bernde yu ruuxu mooy teraanga ju mag si bernde yu biir yi ñuy lekk loolu teraanga la mais bernde ruuxu gi mooy su heure bi jot nag murit yëpp dañ ne selaw xalaat nag teraanga ji heure bii ñu ko amee ni ñu ko fonkee ñu santaat Sëriñ xam ne defal nañu loo xam ne ndey mënu luñ ko bàyyi mënu luñ ko loolu maa ngi leen ci bàyyi loo xel la ca des mooy ngeen góorgóorlu te doon ay murit saadex te moytandiku jamono yu yóbbaale leen ci ay caaxaan ragal leen yàlla ragal leen ku ragal yàlla ragal leen ku ragalut yàlla ku ragal yàlla day mat naa ragal ngir daa jege yàlla ku ragalut yàlla day mat naa ragal ngir daa sori yàlla waaye yàlla yit mat naa ragal yàlla ku mat a ragal la ku ragal yàlla ku mat a ragal la yàlla ku mat a ragal leen yàlla ci seen diggante ak seen morom yi ragal leen yàlla ci seen pas-pas ragal leen yàlla ci li ngeen di jëflante ragal leen yàlla ci sàmm ak seen diggante ak seen Tuubaa ndax dëgg kenn mënu koo rey te Serigne Touba da doon jëmm joo xam ni dundam gi yëpp da koo sànq ci liggéeyal yàlla wax naa ko démb fii rek ku baax ki ba mu saan ñëw njaarim Serigne Touba rek mooy seule personne boo xam ni doo ko fekk muy yë muy yëngutu yëngutuwut yàlla Serigne Touba daawul neenal benn jafaayam foo ko fekk mi ngi kër kër sans borom man maa la ko wax juróom-ñaari kees yi nekk njaarim boo ko gisul ci kees gi muy bind. kees gee ma nga fa di dinaafi la kees gee ma nga fa di jàng alxuraan wala ci tàkkusaan si kees gi ma nga fa di tombal mag ñi diggante àddina ak barsaax yàlla nag defal ko tawféex joo xam ni amul mbindeef mu la mën a wax ni mën naa ne jàkk Sëñ Tuubaa xool ko mu xool ma mënul nekk ku baax ki boo ko jubee sa yaram yëppay dam ndax leeruk Sëriñ Tuubaa dafay communiquer ak ruuxu doomu aadama moo tax Serigne Touba bi ko mag ñi mosaan gis day mel dañ leen a rey dañ naan nem mu leen di xool ba yàgg mu naan sa de nii ngeen di mel ci saa wet bu ngeen ko doon mel saa su di sa fonte malaaka yi parce que booba xam nga nit ku baax boo ko jigee da ngay gis ko toog kilifa ba yàgg ngay jooy te dóoru la waaw ah? toog ko sëriñ dóoru la mbéju la xasu la yëkkat kenn dóoru lu tax parce que dafa am leneen lu muy dégager sëriñ ak taalibe beneen affaire la du relation nit ak moroomam dafa am leneen luy lu li li sëñ Babacar Si doon wax naan euh, euh, taalibe dana yegg ak sëriñam foo xam ni bu ñëwee buy lépp sax muy jël leçon buy lépp buy lépp sax muy récupérer lu ko jariñ ngir cofee nag bëgg boo xam ne leer gi day génn ci moom di tàbbi ci xol bi noonu mag ñi meloon ci Sëriñ Tuubaa foofu it lañ ko tolloo woon ndax leer gi xam nga Moussa bi mu bi leera bi bi leera suñu borom demee ci xolam jëmmum ji ba nga ko ne wama tilka bi yaminika yaa Moussa wax ji dafa neex a neex goo xam ni musaa de leen képp lañ ko laaj lu ne sa loxo ndeyjoor bi au lieu que mu ne hiya asaaya yam ca aw laa yore waaye yokk na ca atawakkau alayha yokk ca wa axusu biha ala ganami yokk ca waliya fiha maarib oxra ñu ko yow dan laa laaj wa maa bi mii ni ko yaa rek mu ne ndax kàddu yàlla bi daa neex bi ma yàlla laajee kàddu gi neex na neex goo xam ne mu bàyyi parce que lu tax mooy leeru leeruk sunu borom subhaanahu wa gi mooy communiquer ak moom moo tax même seytaane bi mu karee Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ni ko yegg si nga ci xadarab yàlla bi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani daf koo buusu moo dem juróom-ñaari asamaan daf koo buusu seytaane daal koy féete ginnaaw ni ko yàlla mu ni ko leerug yàlla xol a koy yëg ak roo tey leeru yàlla yi daa fat te sa leer gi santiruma ci dara mu ni ko sama leer gi ngay xeeb day am na ñoo xam bi ñu toogee ci xadara bii bi ma leen feeñoo ni leen maa yàlla dañ maa gëm ma digal leen dëpp nañ dem àddina ñu nga ci sa mission kon loolee mooy tekki ni ku yàlla defal tawféex ju toll ni nga ànd ak Sëñ Tuubaa te doon taalibeem da ngay defaraat sa jikko defar leen seen jikko yi bala ngeen dugg seen bàmmeel yi defar leen seen jikko yi bala ngeen tàbbi seen bàmmeel yi sunu boroom moom rek mooy force tranquille moom rek ngay wax ba bàqee gee fa ay millions de personnes ñu tëdd ñëpp ni tekk moo tax lu ngeen gurgur ci taalibe doyut lu ngeen góorgóorlu ci taalibe doyut dëggu leen bëgg Sëñ Tuubaa doon ay murit bañ a nax seen bopp nax sa bopp baaxul déedéet bu kenn nax sa bopp moytu ndi ko yenn caaxaan yi te not seen bakkan yi ngir yàlla te xam ni ki liggéey liggéey bu rëy bii ngeen teewee kooku fawut fa la wut moom Sëriñ Tuubaa am na bés ci njaareem daa génn naaj wu tàng jër moom Sëriñ Tuubaa wallaahi jël loxo bi rek dóor ci suuf daal di ni maa yërëm maa yërëm mag ñi teg mu ne ko yeesa doom ba mu màgg te jàngaloo ko nu mu xamee yàlla dafa dugg ci biir am na ci cheikh boo xam ni daa sàgganoon lool ci yoon wi Sëriñ Tuubaa woolu ko mu ñëw mu ne ko bis ni ko tey day looy tuddati ci yàlla bul ma ca boole toppal saa baaraam bii ku mbooloo tam woon a topp seex bi dem ba yàgg mbir mi diis ko lool ña ko toppoon ñenn ña dëpp ko wëlbatikuwaat des ci yoonu murit mu dem bind benn kaamil bu rafet xool ni mën a bind kaamil bu rafet ak si doon ni bëgg alxuraan ñëw di ko tuub see da ko jox sëñ bi sëñ bi ni kaccit kaamil bi ni ko rat ni waat kaccit ni ko rat ni waat ni ko rat ni ko téere sa bii ku ma ku ma jox ma jël ko waaye toppal saa baaraam bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa nekkul woon ci ay caaxaan sëriñ tubaa mii gars yi di addise fii ak sëriñ tubaa mi nekkoon njaareem comme yàlla ak yàlla sëriñ tubaa mi nekkoon njaareem yàlla képp nekkoon ci moom weex tal set wicc leer nañ sa sàpp boromam sëriñ tubaa am na bis murid yi toog ci ci gàmb gàmbu dañ doon jàng gis bu jës bul xulub lañ doon jàng waaye bi ñuy jàngis ba ci biir ku tedd ki yaakaar naa daf ne tëll ñëw taxaw tiim leen ba yàgg rek mu yegg suuf moom sëñ Tuubaa xam nga ne ku baax ki daan takk ndigal di ànd ci kuréel di xasida di yëkkati jékki-jékki rek daal di aalu ci seen kaw ñoom ñuy jàng moom sëñ Tuubaa di wër di wër di wër kuréel gi nan la wax leen ma ko bind lii wax leen ma ko bind lii mag ñi ni ñot ñi mu mënoo sikki te moom moo ko bind waaye yëg-yëgul leeru xol gi ak ni mel ci yàlla moo ko yóbbu foofu ne ko moom Sëñ Tuubaa moo tax ku xam ci li Sëñ Tuubaa nekkoon doo foyee yoon wi doo nekk it nit ku nitu mbosoorkat ab caaxaankat koo xam ni yow daal moom da jàpp sa àddina yépp ay caaxaan rek la Sëñ Tuubaa nekkuloon ci loolu na ngeen xam loolu xasida yii bu ngeen xamoon xasida yii di wax di xam ne ki so ki concentré wu ci xasida yii ci dëgg rek la nekkoon ci dëgg rek la nekkoon waxay suma taqaf ilaahakal ahad yaqaf ka min xawfika hu kull ahad nee na boo bëggee doo ko tekkee da nee na boo bëggee lépp respecté la ñu am ne respecté yàlla rek yow ndax yàlla yàlla moom lépp ko na ku bëgg lépp respecté ñu ne ko am mu ne respecteel ki moom lépp lépp respecté la waaw bàyyi xel borom xaj rek xaj bàyyi la xel ku ragal yàlla lu dul yàlla ragal la loolu lay tekki inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alamin wala afnal funun nee na nag nekkal islamologue nekkal doctorat nee na nekkal alimi kulli fannin mooy ku ku ku maîtriser langue yëpp jàng jàng fa soo xam-xam yëpp ñu naa mu ni waaye li xam-xam bi di bari bari bari nee na ragaloo yàlla Sëñ Tuubaa nee na xamoo dara ndax xam-xam a ngi tàmbalee ci ragal sama borom ragal yàlla nag ay màndargala mooy ngeen di bàyyante xel ci seen biir di joxante ay cër di respectante te xam ne ku jël sa loxo bii teg ko ci sa ron nga naay war a nelaw xam nga yaay kan loolu bàyyi leen ci xel bu baax kon maa ngi leen di sant ngeen góor góorgóorlu doon ay taalibe maa ngi leen di sant ngeen góor góorgóorlu doon ay taalibe bëgg sëñ Tuubaa comme ni ngeen ko defee. ndax jataay bii ku xool jataay bii bu suñ tubaa ni woon tëll kenn du sensé jataay bi ku baax ki tey ji bu ne woon tëll fii xawma kan mooy defaraat tooginam mais yéen kenn du sensé ni nga toogee ndax jataay bi rek wax na ci dal gi ci teewlu gi ci teey gi ci heure bi ak temps bi ak li ci xewoon lépp ak nii ngeen toogee wan ngeen Serigne Touba ne ko yëg nañ ni heure bi ci lañ amoon lépp moo tax ne leen jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne leen jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf leen ko. jërëjëf Serigne Touba. Alioune Kébé. jërëjëf Serigne Touba. ana Alioune Kébé ana Seydina Alioune laa wax Serigne Touba damaa danoo defal lu lu lu kenn defalul taxawal fi nga bakkal ma Serigne Touba ak mbooloo mi nañ bakk Serigne Touba ba malaaka yi yëg ni yor-yor bii ci leen taxee ñun nañ ma bakkal Seexul Xadim. ba malaaka yëg ni yor-yor bi ci lañ am lañu amoon lépp ci lañ ko am xoolal Serigne Touba képp Khadim képp bàyyi Serigne Saliou képp laa la wax nag la bakkal ma ko waa ji bakkal tan aw la to الله جلاله إن الله جلاله أنا جاك لدر لا مناسب سألت جل بالمختار سمقيم لا يقاربني بالقدر قدار سألته جل بالمختار ثم به أن واجعني للقدر قدار مني للنبي أبدا كل محب وما آباه ياباه نبينا المصطفى نبينا المصطفى خير الورى قلده في كل خير ما باه ياباه را قزائد توحيد لمالكنا سواحد الحق من عاد من باه را قزائد توحيد لمالكنا فلترق منعاتا لمن باب أوصي بربي توحيدا أبدا سالعات وأداب والدار للقادة الأجور للقادة الأجور للقادة الأجور والمسالح والمسالح Serigne Saliou wa inni Serigne Saliou wa inni Serigne Saliou wa inni Serigne Saliou wa inni Serigne Saliou wa inni Serigne Saliou wa inni Serigne Saliou iqaadatul jooro wal masaalixu بالتي والكسب وإبليس لسانه من خادة الأجور والمسالح من خادة الأجور والمسالح والمسالح بالحي والجسم والإنس الإنسان للقادة الأجور للقادة الأجور والمصالح بالحي والجسم والإنس الإنسان يمبكي لن يكن يمتقل يمبكي الإنسان يمبكي للقادة الأجور والمصالح بالحي والجسم والإنس الإنسان سلسال مبكي Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne ñu màggal Serigne Saliou Mbacké borom jannatul maxwa Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacké borom xabaat Serigne Saliou Mbacké borom jurul Serigne Saliou Mbacké borom lagat Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké na ñëpp def ni ñu màggal Serigne Saliou Mbacké borom jannatul maxwa Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké alhamdulilah ndagam ñun lu mujjee ci ay loxoom Serigne Saliou Mbacké ñoo mujj tam ci am xelam wallaay lii doy nang neel Serigne Saliou Mbacké wéetal nanu demam gi daal jaaxal nanu moom la nu xam mu dem ba nu fu ñuy jëlee xel mu dal sëñ Saliou Mbacké moo nu daa xamal sëñ Saliou Mbacké moo nu daa xamal yàlla ak tarbiya moo nu ko ku ni wuutu ki ci li amatul baaraay Madu Lamin sëriñ Baara Mbacké jarawaay ulan baaraay Madu Lamin Serigne Bara Mbacké jarawaay baari oya baaray Madu Lamin Serigne Bara Mbacké jarawaay baari bara yow la nu yaakaar fii yaa jara yaakaar abadan baari lan borom day fag may laat سن ماما سيقلني في روح بارز أولا برم دي فاق بايلات سن ماما سيقلني في روح بارز تق أبو مديالة برم توباي كم من تورم دولك هجار وخلال جرجب سبب غيبتي